leen ak jàmm mbokk yi ci xibaari lamb yi la ñuy door li ci gën a fës bokk na ci Boy Malika mi nga xam ne dañ ko agressé woon ci ay jamono ba daal di koy jam benn balu pistolet mu nekk ci yaram yi di ci dox mu nekk feebar boo xam ne moom lay woyaale di ci sàkku ndimbal taxoon nag ku ci mel ni Sokh mobile 2 ak Pape Sarr di euh, def benn conférence de presse di ko ñaanal ndimbal ngir ñu mën a faju ba li nga xam ne moom lay woyaale mën a génn ci yaramam Boy Malika moomee Ousseyn Diop seeti na ko mu daal daal di expliquer agression bi naka la demee ak euh, ba mu ca jógee lan mooy tolof tolof yi nga xam ne nii moom na mbër yoo a yaatoo ci xibaar yi naka noonee général Malika moom it euh, Ousseyn Diop daal di wax ci mi nga xam ne nii moom mooy coronavirus bi ñu nekkee ak euh, situation bi mi mbër yi dund waaye it daal dina yëkkati ay kàddu le jagleel ko ki nga xam ne moom mooy le chef de l'État le président de la République Macky Sall comme niñ koy waxee le président de tous les Sénégalais di koy ñaax ci situation bi nga xam ne ñoom mbër ñu ngi koy dund mbokk yi li moo nekk li gën a fës ci ëttu xibaar yi ne suut bu bàkk bi daanoo ñëw génn ci yaatal yi comme niñ leen ko waxee ci boppi xibaar yi booy Malika nag euh, bari na ñoo xam ne jamono ji ñu ngi koy ñaanal ndimbal ngir mu mën a faju ba li nga xam ne mooy jàngoro ji muy woyaale nekk ci biir yaramam di benn balu pistolet buñ ko jamoon gannaaw agression moomee nag euh, daal di nañu koy seeti moom booy Malika ba mu nettali ñu agression bi naka la demee ak fan la ko fekk ak lan la ñu jël ci moom dañuy dem dëgtal leen ko ci micro euh, Ousseyn Diop. weeru koor la woon dama liggéeyoon ba waaj. dem waaw weeru bi dama demoon liggéey ba waaj di jëndi ndogu si la ma loolu noonu arrivé si lañ ma bi ma jënee ndogu bay ñibbisi si lañ ma agressé door ma bal si dënn quoi. ñoom da nga doon jàmmaarloog ñoom ñu dóor la bal wala dañ la romb ak dañ doon nekk di discuter comme ak comme des fois agresseur ni ñuy def rek ni ñuy ni ñuy def rek comme des fois da nga gis ñoo xam dañuy ñëw arrêté la di la laaj ay affaire yaa ngi dégg pour jéem la gën a mën a dugg pour xam pour am ci yow ak daal waaw dañ doon waxtaan yaa ngi dégg ci biir ci biir wax boobu noonu ñu may poser ay question may avancé parce que dama xam ne li ñuy wax amul bopp amul genn ñoom nag si lañ dëggalee seen bopp ma nit ma dëggal seen bopp parce que góor gu nekk góor nga quoi si laa bagaar ak ñoom mu métti si ñoom ci lañ ma dóoree bal quoi wax dëgg yàlla. après bi ñu la dóoree bal moment boobu dina la dóor bal bi dem wala dina bal jël li nga jot yor wala. waaw bi ñu ma dóoree waat parce que ñoom dafa am ko ki ma doon xeexal dama ko dóor ba mu daanu ki nekk ku toogoon ci instructeur bi moom ma dóor bal quoi. mais après nag. bi ñu jotoon na ñoo wàcc moto bi. waaw mais keneen ki nga xamante ni moom laa doon dóor ba mu lii pour songaat keneen ki keneen ki ma doon dem di songaat kooku moom ma dóor bal mais keneen ki ki ma ki nga xam ne door naa ko ba wàcc moom daf maa féete ginnaaw këddu ma. bi ma këddee nag si la lonki sakos bi ñu daw yëg ci scooter bi jaar veden bi dem seen yoon. kon li nga jotoon yow jot nañ koo jël. waa jot nañ koo jël waaw. noonee la demee agression bi nga xam ne moom moo ko jural jàngoro gu muy sooxaale léegi sax mu mat at boo xam ne mu ngi ko tëddaale boobee ba léegi mu ci sàkku ndimbal ñu ci mel ni yeneen i mbari naataangoom di ko ci jàppale bu baax a baax ci ndimbal yooyee waaye moom Boy Malika ñëwaat na ci ni mu gën yaatoo li nga xam ne moom lay yëg guddi yi ñu toll ginnaaw bi nga xam ne nii am na feebar bu nekk ak moom muy wéyaaleeg moom dañ koy déglu ci ci micro Ousin Diop. nit ki li ngay li ngay dund di ko yëg boo ko dee wax sax gaa duñ xam fi mu toll quoi. parce que yow mi nga xamante ne yaa koy dund di xam fi mu toll yow yaay xam métit bi man ku ma xam-xam ne tollu ma woon nii nii mais bal bi daf ma wàccee bu baax a baax a baax baax a baax parce que feeg deux mois mu mu def un si man. Mm-hmm. waaw mu nekk affaire boo xamante ne affaire bu métti la tey tey moom alhamdulilah quoi parce que dem naa faan jël naa samay garab mooy loolu tey moom ni ma nekkee nii moom wax dëgg yàlla alhamdulilah waa yëg naa sama bopp. fii fii boo jëlee piqûre yi ngay ngay ngay am jàmm mais boo jëlul piqûre yi day nekk loo xamante ni dafay metti ci yow. waaw boo jëlul piqûre yi moom dangay ngay da ngay faible day am loo xamante ni day day day manqué si yow te tamit xëy na blessure bi la quoi mais aussi instant bii nii maa ngi def lu tout pour mu génn sama yaram quoi parce que sonal na ma torop wax dëgg yàlla. ok chaque chaque ñaata jour ngay ngay mën a dem fan pour jël piqûre yi nga xamante ni soo ko jëlee ngay mën a nekk. waaw instant bii nii su suba su delloo dinaa toog ak trois mois pour dellu quoi. soo delloo suba di nga toog ak trois mois pour dellu. waaw parce que suba dama war a dem defi scanner quoi. comme niñ koy faral di waxee réewum Sénégal nag bokk na ci réew yoo xamante ne nii feebar fi daal dinay metti lool ndax pour nga am ndimbal am assistance médicale dana xaw a jafe ba tax na nag kii di Boy Malika feebaram boobee muy wéyaaleel aw na ay am na ay naataangoom yoo xam ne ay mbër lañ ni ki moom daal di fas yéene xar seeni i tànki tubéy ngir lépp loo xam ne ndimbal la luñ ko mën a dimbalee ñu taxaw ci ba mu mat sëkk loolu moo waral euh, soq moom ñëw ci ci nu mu gën a yaatoo ci benn conférence de presse doon amal niki bërki démb foofee ci centre socio culturel bu dañuy dem déglu ji ko ci micro Djily Kébé. dama seetaan benn interview bu Boy Malika def ma toog tamit en tant que jullit ak doomu aadama ak moroomu doomu aadamaam mbër ak moroomu mbërëm tey man sama loxo jotul sama ginnaaw te li ko dal noonu mu tëdd jomb ma man soq te tey man mii sama loxo jotul sama ginnaaw bu ma daloon dinaa bëgg ndimbal su ma yoroon ay milliards tëdd ci su ma dalee mun naa jël ci sama milliards yooyu faju comprendre nga mais comme moom tey mag moom ñoo yem suñu loxo jotul suñu ginnaaw ba tey mu dugg site internet bi def benn communication def benn interview boo xam ne man dama ko seetaan barki Seydina naa yeggalewu ma ko sama yaram dafa daw parce que bi mu nee woo naa diw woo diw mais dañoo filtrer sama numéro te bal bi yii may sentir muy dox sama biir xol bi ñi dee gënuma leen nañ ma bàyyi fu ma yàlla yemaleeg moom ma yem fa xam ni fii la ma yàlla yemale ndax ñi dee gënuma barki suñ Tuubaa yeggalewu ma interview bi dama ci yëg sama bopp xam ne tey man mii lii ko dal nii bu ma daloon tamit bu ma amul ndimbal tamit nii lay demee ci man rek ndax sama loxo jotul sama ginnaaw. ca ndaje moomee sax fa nu fekk mobile nekk mbëru Grand Yoff nekk koo xam ne xam nañu ko ci social min nañu ko ci jàppale gi nga xam ne mu ngi jàppale mbër yi nekk en difficulté moom mobile de moom it yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmal ci feebaru booy Malika boobee dañ leen koy dëgtal ci micro ji li li ma yéem nag ci Sénégal yëpp lenn la ñi feebaru 500000 rey yëpp dëju 6 millions la ñuy am ñi fi feebaru téeméeri junni rey boo demee seen dëj budget bi day ëpp millions ndax ku ñu fëggoon pour nga jàpp ci ordonnance bi nga tëj sa bunt bu dëj bi amee nga indi nagu si nagu 300000 léegi détail boobu noonu moo war a jeex ci làmb dinañ dem ba këram wut ci solution parce que tey nii ñuy def nii tey ko yor numéro sox ngoon di nga ko woo ne ko waa gaynde man de benn 5000 bi laa amoon benn lii benn laa. parce que ku jaarale woon ci loxo sox 1 milliard te 6 millions koy faj dina jël 1 milliard yóbbul ko ko parce que amuñu ci soxla suñu borom mu ñuy dimbalee. dëgg la métti na bu buñ ne méttiwul ci ñun dañuy wax lu ñu neex mais suñu borom mu ñuy dimbale ñu ngi sant yàlla ndax heure bu ñu xëyee fii moom kaase yi wute rek waaye ko xëy guux heure bu ñu xëyee cin ntaak kër ga naka noonee mbokk yi laataa ñoo jóge foofee soq mi ngeen gis sànq ak mobile 2 mi ngeen gis ñoom it association des lutteurs en bi nga xam ne moom moo njabootee mbooleem kuy mbër te am licence te nekk ci réew mii di Sénégal association boobee nag euh, Gris Bordeaux moo ko jiite waaye am na mbër yoo xam ne ñu ngi ŋàññi doxalin wa ndax dafa mel ni gisuñu ci seen bopp soq la ñuy dem déglu ji ci micro ji di Kébé. waaw man moom ay association mbër wax dëgg fa yooyu maîtriser wu ma ndax kenn mësuma see woo. kenn mësuma see wax dara man ni nga koy déggee noonu laa koy déggee te mbër laa comprendre nga kon mooy li ñu wax keroog rek maam làmb même mbër yi ci seen biir sax déggoo amu fa booloo amu fa ndax tey ñaata association nga dégg ci mbër yi ñaata association nga dégg du benn du ñaar du ñett man rek xam naa ñetti association mbër yi ñaata mbër lañ tey bu ñu defoon benn bolog bu ñu nee benn balaa kenn wax dañuy fajal loolu parce que dañuy xam ni bolog bii nii am na doole tey am na foo xam ni du duñ xaar sax ñu fay yegg mais amuñu bolog boobu tey moo tax tey lu ñu ku bëgg a percer mbër da koy percer mbër lañ tegul muy dara. mën nañ ne foofee mu daaneele fa la mobile doo yëkkatee moom it ndax nag association boobee jàpp na ne taxawaay bi mu waroon a taxaw dëgg dëgg dëgg taxawu ko ba taxoon na am nay solution leen waxoon ngir ñu jëfe ko dañuy dem déglu ko mu yaatal ci micro ji li nii licence bi ñuy dagg ñoom ñu ne ñoo yor association yi lépp moom moom la ñuy dagg seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci. seen groupe WhatsApp boobu bokkoon naa ci man maa njëkk a taxaw ci groupe bi ne leen mbër yi ñuy nekk di ketal ci télé bi bu fi kenn di ŋàññi benn politicien wala benn kilifa ñun la 8000 licences ñoo am ci làmb ji. 8000 licences licence bu nekk weer bu dee mbër bu nekk daa war a natt 1000 francs ci association bi nañ ko def un ñu wax ñaata lay doon ci milliard. maanaam mbër yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw nga xam ne guddeeg bëccëg. li ñuy def ci ay interview li ñuy gisanteeg ponkal mee ko ëpp wax jee fi nekk waa fi mu leen téye ba lu ko neex mu def ko ñoom duñ ko wax. parce que ku ci nekk des fois say paanu un million mu dépanne la say paanu cinq cent mille mu la ciy dépanne loolu du dara da xalaat neuf cent personnes yu topp sa ginnaaw yoo xam ne li nga leen war a dimbalee moo ëpp un million kon bu un million tojee sa gémmiñ fan nga jëm ak ñooñu. gannaaw ba ñu jógee foofee mbokk yi dañuy daal di tàbbi jiwaat ca Malika fekk fa seen mbër moomee di champion ba faree baax foofee ñu gën koo xam ci général Malika moom nag ndeysaan euh, jamono ji nga xam ne moom la ñuy dund daal di nay metti ci ñoom lool rawatina ñoom képp koo xam ne nii sax mbër nga ba tax mu yëkkati ay kàddu jëmali ko ci le chef de l'État président de la République mi nga xam ne moom mooy njaboote képp kuy yeewoo ci réew mi kooku mooy général bu Malika dañuy dem dëgtal leen ko ci micro Ousseyn Diop. Macky Sall jour bi mu waree ñëw Pikine dafa xool leaderu Pikine yi mbër yi woo leen pour jëmmal bisam ba mu waree ñëw parcelle dañoo jiital ñoom Modou Lo ba mu waree ñëw géejawaay Balla Gaye noonu ku ci nekk gox boo waree ñëw yaa ngi xool mbër mu fa nekk am coow nga jëm koo jiital pour mën a yokk sa coow kon tey jii bu demee ba làmb toll fii am jafe-jafe ñoom ñu ñëw xool war a xool nuñ ci jàppee di ñu seetaan loolu dafa dafa ñaaw tey jii nii ñun xoolal moment biñ toll nii liggéeyuñ defuñu dara duñ fi nekk sax di négocier naan ñu ngi ci lii làmb lañ gëm moom lañ yaakaar ci lañuy ñuy di ci gond comme ni ngeen gëmee seen caméra yeeg yi bu ngeen xëyee di xool information ak li ngeen di jënd ñun moom lañu gëm tey jii bu ñu tooy téye boobu ba léegi bëreewuñu ñu bàyyi ñu nii kon ñun fan lañ jëm quoi. te leen benn yoon ngeen wàcc ci tali bi. tali bi te ñun ñu ngi ñu ci doon xaar tey jii moo tax Sénégal dafa neex quoi li artistes yi def barki arxuraan ñun ñoo leen ko dàqoon fuuf te boobu ba léegi ñu ngi calmé toog jàpp suñu ñàmbur kon état bu fekkee yaay jiite Sénégal ñu ne yaa jiite réew mi ngalawaay sédduñu cër te bàyyi ñu xel. gannaaw kàddoom yooyee mu yëkkati jagleel ko le président de la république moom général Malick toftal na ca yeneen i kàddu yoo xam ne ni da koy wax ci huis clos bi nga xam ne moom la ñu njort ne làmb fa la jëm dana baaxam du baax dana leen jigam du leen jig dana jig làmbam déet en tout cas moom général Malick joxe na ci xalaatam dañ koy déglu ci ci micro Ousseyn Diop. làmb bu ñu ko naree huis clos ñu toog suñu biir néeg yi bañ a sax génn suñu kër yi. Mhm. Ah, bien sûr kon jaratul ñun ay jaaj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 jaayante dóorante épaule war a waajal làmb ji ku nekk xas-xasloo mais loolu bu buñ ko dindee ci làmb ay lan moo desate ci làmb mbiri wii kuloo mbokk yi mooy li nga xam ne mooy animé de bàyyi guddi yi ñu toll amateurs yi supporters yi mbëri yeeg ñépp ñi nga xam ne ñu ngi ci làmb ci la ñuy waxtaan saa su nekk ba xam ndax lu mën a nekk la wala déet euh, en tout cas li ñuy wax rek moom mooy làmb dafa riime ak culture te ku ko wax culture faaw nga wax bàkku yaag fecc yaag leneen ak leneen la nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu folklore la tey am ca biir stade ba te supporters yeeg amateurs yépp di ci gis seen bopp mbokk yi lii bokk na ci liñ leen indiloon tey li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci Boy Malika gannaaw agression ba mu ngi dox ak benn balu fetal bu nekk ca yaram ya muy sàkku ndimbal ci képp koo xam ne ni mën nga koo dimbale ci mbir moomee ba mu retrouver waat santeem soq ak mobile de ñoom it en tant que mbër fas yéene nañoo xar seen tànk tubéy ngir lépp loo xam ne ni ndimbal ak fu mën di nekk ñu jëli ko indil ko kookee nga xam ne moom mooy booy Malika ca Malika boobee it fa la ñu fekk général euh, nekk mbër moo xam ne champion la kenn dootu ko euh, kenn dootu ko présenté kenn ci làmb moom général bu Malika yi yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci président de la république Macky Sall waaye tamit ak huis bi nga xam ne jàpp na ne làmb moom mënta riime ak loole mbokk yi soq ak mobile de ñoom it woon nañ fi ay daal di ŋàññi doxalinu association des lutteurs en activité bi nga xam ne moom la Gris Bordeaux jiite li moo nekkoon li ñu indi loon tey ci xibaari làmb yi leen di jaajëfal cant ak ngërëm ñeel na leen di jaajëfal Ousin Diop bu baax ak kàggu ci caméra beeg euh, Adama ak euh, Jili Kebe nii la ñuy def daal di tàggoog yéen ci tàggoo bu du tàqalikoo di leen jox di daje ba ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ne suut ñëw gen ci revue de presse yi jërë ngeen jëf saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat royal ba diggante Modou Lo ak Ama bile combat ba nu ko taxawaleeg léegi suur naa sunu làmb ba xayma na ko mu toll ci fukki weer ak ñett boobee ba léegi bile avenir u combat dara leeragu ca Ama Baldé ndey mbili gi xamagul kañ lay sëgg ak Modou Lo le roi des arènes xarañ loo xamagul kañ lay teg couronam ba bile combat bari nay interrogation kenn xamagul diggante Modou Lo ak Ama Baldé kañ la ñuy sëgg du ba du supporter du amateur du amul kenn ci ñoom ku xam bile la ñu koy amal bu dee promoteur ba Luc Nicolaï la ko waroon def na ko ñaari mbëri ku ne mos na ba ñu matérialiser bi le ñaari mbër yi la leen waroon ci combat ba doon jox Modou Lo yi nangu na Ama Baldé mënu ba déggoo ku ne jot sa avance waaye ba ba léegi mooy li téye réew mi ba kenn a dox say soxla mbas mee ndar kàpp combat royal boobee yëkkati ko ba ci kaw teg ci suuf waaye amateurs yi ak supporters yi la ñuy xaar ci Luc Nicolaï mooy mu génn wax ay garantie wax ndax combat bi pare na pour tëgg ko ci huis clos wala déet bu dee suñu papa Bécaye Mbaye la mu xamle mooy bile combat daal dàqu ñu ci huis clos te ñaari mbër ñoom la bëgg mooy bëre ba tax tàqalikoo bu dee Gris Bordeaux le président de l'association des lutteurs en activité moom combat ba la ko ci yéem mooy amal gañ ko nar a amal ci arène nationale moom Gris Bordeaux bi le combat ci arène nationale dalul xelam la lëndëmal xelam mooy gestion ba ak insécurité ba rax ca dolli ne laataa ñuy tabax bi le arène nationale ba ma gisee maquette ba laa ne site ba nu koy def adéquate fanu tànn bëgg ko faa def foofee rafetlu wu ma ko ñépp a xam ne lamb sport bu noble la waaye site boobee ñu ko def day renvoi à la violence waaye nag comme que def nañu ko fa ba léegi mënatuñ ci dara la des kay mooy ñu xool ba xam naka la ñuy def ba mu am gestion bu baax am sécurité bu dee mbiri wii kuloo moom it Gris Bordeaux yàqu ko benn yoon le Don King de l'arène Gaston Mbengue moom it bëgg na huis boobee bu fekkee am na ay jiixi jaaxa mu ubbee ko moom ma ñu dippee le promoteur des grands événements la mu bëgg mooy démarrer huis ba daal di koy essayer ba xam diggante Eumeu Sène de Guiers rax ca dooli ne pare naa it pour yóbbu fa Modou Anta ak Diène Kaïré moom Gaston Mbengue amul lu muy tiit ci huis bu ñu leen ne woon tey acca mu ne acca rax ca dooli ne man bu ma koy organiser a nekk la wala déet rax a basé wu ci nekk la leneen la jàppoon ne mënta nekk ci làmb toog fukki at mënoo am victoire loolee ndekete am na ci Ouza 2 bi la journal ba xamle mooy fukki mu ngi ci guddi gu bët setagul moom Ouza fukki at yi mu toog bëreewul bu ci tegaatee dara làmb dootu ko xàmmee bu nu demee ca jàngat bu yaatu ba sunu làmb def mooy xale yi fi nekkoon ay jamono ràññeeku woon lool ci bëre bi mënoon cee am lu nekk làmb amoon ci ñoom yaakaar fi mu toll nii mbër yooyee ci lancé seen carrière relancé waat ko ci lanu nekk ñetti mbër yi yi la ñetti mbër yoo xam ne koo jox seeni avance seen mbokk dootuñu nelaw ñu toll benn jamono seeni guddi daal di metti lool waaye fi mu toll nii delluwaat buum ca mbooy mbooy ga rekk lanu yoo xam ne dañoo bëgg a fësalaat seen bopp wane waat ngeen jëf mbokk yi li li gën a